na ñëpp xam ni bu ñu fi indee euh, un kilo de drogue un kilo bi amul benn milligramme bu si rëcc lépp fuur bi jël na ko incinéré na ko euh, bés bi nag dafay euh, mandargal résolution bi nga xamante ni ne assemblée générale des nations unies jël na ko pour vingt 26 vingt juin bu nekk mu nekk journée internationale de lutte contre le trafic de drogue.

félicité surtout au ministre de l'Intérieur intérieur taxawaay bi nga xam té taxaw nañu ko pour que Sénégal baña nek pays bo xam ne pays narcotrafiquant de de drogue euh jamono yuy weesu deug ngeen diggante euh, zone euh, jëm ci jóge ci frontière bi drogue yu bari nga xam te jàpp nañu ko ni mbirum héroïne ak yeneen muy wane seen taxawaay euh, pour sen kem kàttan ñu indi ko. pour lolu mëna a dakk ñu xamni rek ñi koy def diko jënd diko jaay Euh, ay technologie yu xarañ xarañ lañu lañu yor réponse bi nga xamante état mi ñu koy apporté nag ñu koy apporté pour ñoom du ñu tëral état bi ñu ko dindi pour loolu mën a dakk xayma bi ci produit yi mooy li ma liir sànq ci euh, kalaamu nasaraan xëy na bu ñu ko doon résumé euh, dañuy jàpp ne yamba bi toll naag trois tonnes yu tegal cocaïne bi sept tonnes lu tegal am na yeneen également substance yoo xam ne rax na ci comme ni ma ko liiree sànq drogue yooyu nag fi ñu bàyyee ko fu bëri la xam nañ yamba dañ ko béy ci biir dëkk bi également dañ ko béy ci dëkk yi ñuy wër am na yoo xam ne aussi fu gën a sore loolu lay jóge donc yi ñuy gis nii yëpp fii région Dakar la ko force de défense et de sécurité jàppe waaye fi mu bàyyee ko fu bari la si wàllu xayma bi nag xayma bi toujours du yomb ndax prix bi drogue di jar Sénégal mën na koo bañ jar ci yeneen réew ak un continent donc xayma bi xayma rek lay doon mooy à peu près mais mën nañ jàpp daal suñu basé woo ci tendance yi liñ ci lakk war na nekk entre 400 et 600 milliards de francs la période que mu couvrir mooy li 2022 mois de juin ba 2022 euh, 2024 mois de juin également moo bés bi ñu toll tey.